أطفئ الله أسم الذي لا إله إلا bandiraɓe sonnani o zicre mataw on paami euh, euh, ceerno djibril alpha mamoudou cheikh limamul madiw to wuuro madiw noddi ziyara makko yonti o noddi omo nodda heen omo waɗa eraango omo nodda heen julɓe fof no aadirno wadde ni hitaande fof e hono jamanu oɗo omo wowno noddude e, e, julɓe fof sénégal fouta aduna o fof yo ngar notitomo ɓe ndenda ɓe ndewa allah subahanahu wa ɓe mbaɗa koɓe gowno wadde ko ɓe nden ɗum e julɓe fof nden nden baraɗe ɗi nden ndewel allah o noddi halifaji halif généraux ji gonɗi ɗo e foofu ngo fof di woote sunu ziyaara maam bi góor yàlla gi nga xam ne moo jëkk a samp xeejam ci suuf ne diine dari ma yal nañu ko yàlla fayal ñi ngi woo jullit yëpp ku dégg woote bi mooy sa carte invitation bàyyiwuñu kenn njaboot gi nekk senegal njaboot gi nekk Europe sët yeeg ñépp woo nañ leen ñi ngi woo waa kër Yaaba Xari maam fàttewuñu leen ñoo bokk maam ji ñi ngi woo waa Mauritanie famille colonel euh, lii ak njaboot ji fàttewuñu kenn ku ko dégg daal booy sa carte invitation. mu ngi ci woo njabootam gépp rawatina nag mbokkam yi nga xamante ni ñoom ñoo ko bokk euh, bokk na ci waa Thiénaba ci njiitul euh, xalifa bi di Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck yal na yàlla guddal fanam te wéral ko ak itam waa Ngay ci njiitul Serigne Ngay ak waa Medina Sarr. di ko yëgal itam sëñ Muntaga Mbakke mi nga xamante ni moom moo fi toogal xaadim rasul Cheikh Ahmad Bamba di ko yëgal itam euh, sëriñ Babacar Sy al Khalifa at di ñaan yàlla itam yàlla guddal seen fan wéral leen waaye di ko yëgal itam ay bokki boppam muy waa séer waa waalo euh, ci sëriñ Issa Dieng ak xadara bi nga xam ne mooy xadarab sëriñ Mbay Dieng di ko yëgal itam alaaji Maodo Sawaare ca Pikine waaye Serigne Mbaye Diagne ca Jéew ak mbokk yi nga xam ne ñoo bokk ak ñoom Seydunaa Limaamul Mahdi ci ñu nekk ci waaloog fu ñu fa mën a nekkee rek mu ngi leen koy yëgal eh, di ko yëgal itam mbokkam yi nga xamante ni ñooy mbokki ruum de te mooy gale Kosek te xalifa ba mooy Omar Alpha Hamad ak Serigne Ousmane Mamadou Aya mi nga xam ni moom mooy porte parole ba di ko yëgal mboolem daal njabootu Kosek gi waaye. di ko yëgal itam mbokkam démb ak tey muy Serigne Bassirou Tall mi nga xam ne mooy xalifa Omariya di ko yëgal it doomam di Serigne Madani Muntaka mi nga xamante ni mooy xaadimu uh, xadra al Omariya di ko yëgal itam suñu suñu mbokki bopp muy Serigne Abdoulaye caw nga xamante ni moo fi nekkal fii Serigne uh, Mahdiou Laay ci Laayeen ci uh, Cambérène waaye di ko yëgal itam Serigne Mouhamad Nabi Guèye mi nga xam ni mooy xalifa Serigne Sini Gueye ci ci ci wakaam di ko yëgal itam euh, Mursid Ahmad Iyane Thian di mbokkam di xaritam di léppam waaye fàttewuñu itam bokki ngay-ngayam bés bi nag bés la boo xam ne bésub ñaan la bésub sant yàlla la bés la boo xamante ni ñun ñëpp dañ ci àndandoo fàttalikuwaat sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ci woo it nag président de la république ak njabootam gépp ministre ministère première ministre di mot bun Abdoulaye Jonn ñoom ñëpp xam nañu Wouro Madiou euh, ñu ngi leen di woo ci ziyaara bi seenub ziyaara la bis bi ñu fàttaliwaat ko le 6 avril la inchaa allahu tombeek vendredi ca ca Wouro Madiou bandiraɓe teddugal mbiyo ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna mouhammadan rasulullahi gandede jiɗɗo mouhammadou rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam jiyare mum yonti no gandanɗa hoore ma le 6 avril mbiten ɗo ko wiyama men tani men almahdiyu yimɓe fof ne gandi diine l'islam e teddugal makko